maa ngi tudd Modou Gning nekk euh, président mouvement Teranga bu Ngoundiane te ñu amoon fi benn xew-xew bu am solo ñu tudde ko woon assemblée général pour que vraiment ñu joxe ay information yu yu rëy ci wàllu suñu doxalinu mouvement bi def aussi mise en place bureau provisoire bi def au dégage aussi ay perspectives ba tax na ànd naa ceeg samay naataango di leen jaajëfal aussi ci mobilisation exceptionnelle boo xam ne def nañ ko vraiment muy waa mouvement Teranga ñi nga xam ne ñu ngi guddi ak bëccëg di xeex pour que li nga xam ne du yoon Ngoundiane ñu dindi ko fi man boo gisee comme li ma la wax tey rencontre bi côté moo taxoon mu am solo parce que même foo dox Ngoundiane ñu ngi ñuy interpellé ci élection présidentielle yi mais mën naa ne présidentielle yi man amaguma ci benn choix leader ba may àndal mais gëm naa ne dinaa am leader ba may àndal te mouvement Teranga dina choisir dina def le bon choix parfois dinañ recevoir aussi ay ay ay ay sollicitation ci yeneen parti mais seen vision ak sama vision dafa bokkagul xale la waaye am na lu bëri yoo xam ne jàng naa ko si politique sama maam ku jur sama pap moo njëkk a diriger commune commune rurale Ngoundiane de 1972 à 1990. te aussi je me suis bien encadré par des jeunes intellectuels yi nga xam ne ñoo ànd ak man ci mouvement Teranga ba tax na jàppal ni mouvement Teranga lu tax mu sosu mooy mu nu mu ñuy def ba jóge jëlee Ngoundiane ci guuta gu muy nekk ci jafe-jafe yu mu nekk ci xeex yi nga xam ne Euh, injustice bu ñaaw bi nga xam ne ñi fi nekk ñu ngi koy xeex ba tax am nañ benn programme bu am solo ci wàllu mbay parce que dëkk bi boo koy wax mbay moo ko téye am nañ programme bu am solo ci wàllu lutte contre l'exode rural am nañ programme bi am solo pour trouver solution ci jafe-jafe yi am nañ programme bi am solo di wàllu ndaw ñi am nañ programme bu am solo ci suñu xale jigéen ñu ndaw yi kon d'une manière générale jàppal ni mouvement rural mu ngi bëgg a liggéey mu ngi bëgg a liggéeye Ngoundiane ci benn programme spécifique ñu tuddee ko idéal pacte boo xam ne suñu profession de fois la parce que la ma leen wax aussi ci politique dafa leen du ma digee du ma xase du ma wax lu ñaaw waaye nag bëgg naa ñu jéem a def tout pour que ngu li moom nguñaan moom ñu delloowaat ko ko ñu delloowaat antu taxaw nañ waa nguñaan yëpp fu ñu dem ñu ñuy sant di gërëm ci yoon bu ñu jël parce que ñu ngi commencé visiter visiter nañ hôpitaux yi visiter nañ camp yi visiter nañ tool yi visiter nañ pratiquement doomu yi Dakar visiter nañ wax échanger nañu ak tailleur yi échanger nañu ak chauffeur yi échanger nañu ak ndaw yi je pense que li des que ñu confectionner programme ko doxal en 2019 am nañ ci confiance te gëm naa ne sama gars yi pare na te man pare na li fi ñekk dina fi jóge incha allah. ñu koy lu bu baax a baax a baax di ko lu bu baax parce que dafa ñaaw vraiment carrière bi. waroon ñoo jëriñ waaye dañ ñuy xañ parce que boo jëlee ay doomu Ngoundiane carrière la ëpp ci ñoom accident de travail yi ngay dégg ay doomu Ngoundiane lañ loo ñu ngi interpeller aussi état bi il faut que justice soit faite parce que ñun xamuñu ay doomu Ngoundiane rek ñoo fay dee lu waral lool waxoon naa ko ci sama beneen interview xana ñom dañuy sacrifier ay doomu ñaar pour ñu mëna am alal nañ ñu léral lool wala ñu mëna am xéer xamuma parce que accident yo xamni du ñëwé rek ci doomu ñaan lay dal lo tax xalé yi nga xam genn nañ tel pour manifester sen indignement vraiment par rapport ak li am na sen dëkk parce que ñom gis nañ ni dëkk bobu dafa xaw na jege carrière sen tool yu yépp yi nekkoon côté joxé nañ ko ñaarel ba ñom fi ñu daan samé lool yépp gaay jaay nañ ko plus de 60 hectares jaay nañ ko fofu mu nekk lo xam lu metti kambe yi nga xam fa la ndox mi mi di taa xale yi bu ñëwee di fo xale yu bëri dañ fay lab loolu moo waral dix moo war pratiquement yi ngay dégg ay xale yi fa lab yoo xam ne ñoo waroon a nekk avenir avenir Ngoundiane demee yow nga bàyyi leen ñu ne rek amuñu benn mesure sécuritaire boo xam ne def nañ ko fa kon population bii nga xam ne jóg na tey ngir réclamer loolu dafa réclamer loo xam ne droit am la ba tax na man dama déplacé ba foofu jéem leen a jàppale mais forte parce que xam naa la ñuy xeex man mooy may soxal la maa taxaw ne leen fii soxlawuma benn entrepreneur carrière financé ma soxlawuma ko waaye lu ne ñoom ñu ngi koy def pour jéem a corruption yu kenn xamul waaye mouvement Trank kenn mënul tëj gémmiñam ñii fi nekk aussi ñu ngi ñuy jéem a galfatu ne waaye mënuñu ko tuuti nañ ci parce que man mouvement Trank la leen wax ci sama discours ci biir mouvement Trank ci renseignement Serigne Touba la toll. ci la tegu te ñii di ma xëy yëpp dañuy sonn waaye mënuñ si man dara ba may soog a jóg lan lañ fi waxoon kii du dem dem naa ba ëpp leen garaat tey jii parce que ñi nekk si ñoom sax faaleetuma leen parce que sequma ak yom yéen i kon jàppal ni population boobu am na lu gën a am solo sax ñoom ñu ngi koy xeex muy électrification seen dëkk boobu ni nga ko gis ñu jege kar yi amuñu dara laat lañ luñ leen jox foofu mooy courant da lañ fa am te courant bi doyul ñaare ba jox nañ leen benn case des tout petits boo xam ne fonctionnement nu mu waroon amul. benn mosquée mu nga fa presque depuis cinq ans mosquée bi mënul àgg et pourtant carrière la xeer yi di jóge lu gëm li ma gën a ñaaw lu mooy ay doomu Ngoundiane bu ñu soxlaa xeeru carrière mënuñ koo am. ñu nekk être dëkkul Ngoundiane am ko moo gën a yom ay doomu Ngoundiane ba pare lu cher lañ ñu ko jaay imagine loolu mine yi ñu daan def dañ daan fissuré sax suñu suñu kii xool suñu hôpitaux yi jàppale wuñ leen ci dara dara dara ki fa mujjee def accident bu ñu ko yóbbee hôpital bi amul luñ ko faj alcool bu baax si amu fa kon jot na ñun doom jaan ñu yeewu ñu jóg loo tax ñii lu ñu manifester tey suba dama cee kontaan ba pare dinaa leen prêter mon forte te dinaa leen accompagner ci combat parce que sama combat la. responsabilité yi ngeen nga yi euh, état bi am na lu mu ko waroon na ko def muy à travers la direction des ah. mines na ko def bu gën a am solo nag mun naan ñoo kii mooy waa ji fi ne vraiment muy le conseil municipal en l'occurrence le maire problème yi am fii yëpp walu carrière moo ko indil doomu Ngoundiane parce que taxawaay bu mu ci waroon a taxaw taxawu ko te nit ku ñàkk fayda la devant les promoteurs des carrières nit ku ragal la devant ñoom nit koo xam ne passé tout son temps di yelwaan ay xeer ak di ko maye feneen rek loolu ay samba alaar rek lay def te ñun nit ku mel noonu nag jog nañ ne dootuñ ci jiite mandaam bi yàllaa ko tuddoon natuñu ko ñu def ko kaani nañu nag jot na nag ñun ñu poobar suñu bopp pour won ko ni lu mu def ñun ñu gën gënuñu koo man kon li nga jàppal ni responsabilité doomu ngu ñaan yi si am nañ ci ay responsabilité parce que am na ñoo xam ne ñu carrière ñu war a défendre seen intérêt kenn bu jógee défendre ñeneen di ko faxastal faut que cela nañ constituer un syndicat fexee xeex loolu buñ ko deful seen jafe-jafe dañ leen exploité ba xeer yi jeex ñoom kenn du ci tabax bâtiment bu baax kon ñi doomu Ngoundiane yi nekk foofu maa ngi leen di lancer appel si Modou Ndiaye ak ñeneen ngeen gën a constituer combat bi xam ni mouvement Tra muy seen kam lu mu jar pare naa pour ànd engagé koog yéen ñaareel ba mooy le maire la la ma koy interpellé waat encore une fois na yëg doomu Ngunjaan xam ni jafe-jafe yi nekk Ngunjaan métti na jafe-jafe yi nekk carrière métti na na ko jaral mu dox ba foofu fekk ay doomu Ngunjaan nan la ñuy liggéeyee mu xool ko te bàyyi suuf su muy jaay ay millions yu millions lay jaay fii kenn du xam xaalis bi fu mu jaar jot na kacapan bi nañu may mbay jon nañu may mbay jon yërëmal waa Ngunjaan tout ce toutes responsabilité la ëpp ci moom la gàddu yaa ngi laaj ñu audité jëm ci wàllu droit de stationnement yi ak li jëm ci saal de euh, salle des jeunes bu Ngoundiane. dañ koy laaj te tey lañ ko gën a laaj parce que dañ caa xam ay njuuj njaaj yu jooy doy waa xam nga koo xam ne yàgg ngaa liggéey fii ni centre euh, ci station matu matul see deux ans nga dem ba taxaw di bakkoo ne jënd naa kalandoo te ñu lay fay soixante mille man de salaire laa yor waaye bu dul sama ñaari oto yaakaar mënumaa jëndaat kalando ah yow soixante mille calculer leen même banque bu lay lebal sax du la nangoo lebal nga taxaw fii devant nga ne a ah, man de naa ñaari kalandoo di bakku nga yaakaar loolu du sàcc il faut que ñu auditer leen parce que du ñoo xool bu ñuy liggéey bëccëg kese plus de cent millions ñoo doon généré wu ci biir ñu dem bay liggéey guddeeg bëccëg xanaa war nañoo maanaam deux cent millions par jour waaw ci ci ci ci vingt quatre heures nag nañ ñu ko leeral parce que ña fa xam naa leen bu baax am na ñoo xam ne am nañ fu ñu jaar ba nga xam ne la ñu boole woon ak ñoom dañ koo détourné woon du ma tudd ay tuwaay bu ñu déggee li dina xam li may wax ñu détourné xaalis ba te xaalis bi ind population bee ko moom ñu ñëw tey ñooñ lañ fa teg loo tax koo ci gis si ñoom lex yaa ngi ne wëng lekk bakkaar ba fees dal commencé nag di bakkoo fii di naan ay jënd naa ñaari kalandu saal bi nga xam ne moom la wax ni cent million nee na quatre-vingt-dix millions yëpp Ngoundiane moo ko génne ñu koy laaj nag ngeen li laa war a bu ngeen pare ngeen dem xool saal bi est-ce que jar na cent millions am na ay technicien de bâtiment yi ma nekkal dem nañ fay def évaluation bi mais il faut que cela cesse kii na bàyyi ay yu muy def te ba pare am na beneen saal bu muy waajat ñu ngi ko ci ay alerté population baa ngi nii sonn baykat yaa ngi nii sonn yow ngay waaj a construire saal pour jigéen ñi nee na jigéen la ko jagleel ancien siège communautaire bi mu ne ñoom la ko jagleel te fas yéene na caa def plus de cent millions xam nga yi fu yabaate la ngeen baal ma si teru mais nit ku yabaate moo ñu diriger ak ñimu mu yépp parce que ñi moom dama leen a faalewul si dara seen dara yëngaluma parce que nit ñu ñàkk jom ñu ñàkk da laa gis fu ñu jóg di wax ci télé yeeg ngunjaan def ngunjaan moo gën a yées ci commune bi durant président Gora ñoom ñu ngi woon pratiquement à deuxième commune trale au Sénégal derrière Sangalkam mais léegi commune yi mënatoo sa xam suñu position pourtant alal bu bëri moo fiy jóge alal bu bëri kon jot na promoteurs yi li leen waroo ngunjaan ñu def ko audit yi lu war a am la ñu lancer waat état bi aussi appel na génnewaat dossier détournement wu Ngunjaan na ko génnee parce que dossier boobu dossier bu sérieux a te am na loo xam ne leeragul te dafa war a leer vraiment ñuy ñaan état bi mu génnewaat ci loolu. man la Abiatou Sambou Niang euh, maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen euh, jox seen wàccuwaay. ku xamul abi rek yaakaar naa da ñëwul buuc boobu. Euh, man abi du ma ànd ak koo xam ne vraiment day deelu ginnaaw te man tam du ma ànd ak tàppet du mii bu la waxee damay dee bu yeboo nga jëndali ko nag te nga xam ne di ko dëj dafa nekk nit koo xam ne lu wax da koy def dafa nekk nit xam ne dafa am jom dafa nekk nit koo xam ne dafa dem Dakar gis li ñuy daj biir Dakar mu metti ko dafa nekk nit koo xam ne dafa gis maire yi li ñuy daj Dakar mu ne lii day dagg te nag wax dëgg neex yàlla kenn ñemewul defiyee mbay joon Modou rek moom moo ñemee defiyee mbay joon te ñun kat li ñoo war a mën a may moo du doole nekk ci ginnaawam te nag lii dafa war a dagg parce que nekk fii golo di béy bambu di dundee loolu dafa war a dagg vraiment ñun ñëpp dama bëgg ñun ñu àndandoo am moodu te peut-être programme yi xëy na moom moo tax mais bu dul woon programme bi xëy na salle bi kenn du fi xaj ndax ñun waa mouvement Teranga def nañu liggéey boo xam ne xam nañ ñun xaj ci biir salle bi ma leen di ñaan encore une fois rek ngeen gën a sensibiliser seen yi gën a sensibiliser maire vote nekkul da ngay xool ku la neex nii rek nga xool koo xam ne dafa am programme koo xam ne dafa am pas-pas koo xam ne du sàcc koo xam ne du jël alalam di ko teg ci alalu rakkam di naan lii alalam lii alalu rakkam la loolu dama bëgg a yéen yi ngeen doon nelaw yéen ngeen yeewu jël sa benn vote bi juróomi at danga ko tayle dëkk bi te koo tayle sa tool nag lu ko neex la fay jëmbat de boo ma tayle woon sama tool tey boo ma joxoon tool tayle ma ko bu ma neexee ma jiw fa kaani mu neex la mu naqari kaani boobu laa fay ji parce que yaa ma ko tayle xam leen lan mooy bot nañ leen ànd ak moo bi wasalaam